nguur guy jeex borom war naa sédd ëllëg ginnaaw kàddu yi nga xamante ne bii Mame jaara Fam yëkkati na ko ginnaaw bi nu ko génnee ci kaso bi ci manifestation yi nga xamante ne bii amoon na fan yi jàll di ajjuma passé ginnaaw bi nu ko tegee woon loxo maam jaara Fam tey jii bi mu jàkkaarloog way taskatu xibaar yi mi ngi xam le ne kii di mag Sall dictature la ki nga xamante ni bii mooy mag Sall nag nee na day jaay doole jaay doole joo xamante ne bii amut ab àpp amut ab yemukaay kii nga xamante ni bi nag moom moom mooy maam jaara Fam mi ngi naqarlu nii Macky Sall la yore réew mi te nee na mooy yorin woo xamante ne bi yorin wu bon la waaye yorin woo xamante ne bi yor yorinu dictature la kii nga xamante ne bi nag mooy maam jaara Fam mi ngi naqarlu ba tey li nga xamante ne bi mu waxee woon keroog ajjuma di ñàkk julli gi nga xamante ne bi Ousmane sonk ñàkkoon na ko julli nee na nag loolu mi ngi koy naqarlu lool ba fa naqarlu yam ndax jullit kenn waru koo tere ne tey doo julli ji ndax wax lii te liñ fa teg amul benn yoon boo xamante ne bii war nañ koo mën a aaye ngir mu bañ a dem jullit ji nee nag ba tey ci waxi maam Jaara Faam nee na Macky Sall njëkkiwut a tere ki nga xamante ne bii mooy Ousmane Sonko tere na ki nga xamante ne mooy mun Mountakha ngir mu dem julli ji ci li ci li ki nga xamante ne bii mooy Mame Diarra Fam li mu yëkkati nee na Serigne Mountakha laataa muy nekk xalifa Macky Sall aaye woon na ngir mun Mountakha julli ji ginnaaw boobu nag neena sëriñ mun Mountakha la daal di dëpp daal di dellu fee ca Daaru Minam fa la mujjee jullee ji ngir ay gendarme yu baari jumaa ji nekk doo dugg fii ci jumaa yi Cheikh Ahmadou Bamba ji ginnaaw nag maam Diarra Fam mi ngi naqarlu bu baax a baax a baax xew-xew yi nga xamante ne bii moo xew fii ci réew mi te yi nga xamante ne bii mooy loxol Macky Sall ci lay jógee.